Gracias. bolok bi wetu bolok ci wetu bolok waaw koy so so den na dong ba waaw nii nii nii nii What do you want? Hey! moo ko taal lan moo ko taal. oto bi kay daal jékki-jékki rek. oto bu baaxoon la wala. baaxoon na. waa léegi. wala bu wàccee day gën a jàpp. waaw waaye nag tànk bi. bu wàccee affaire bi day gën a jàpp. bañ ci dara de même buñ koy xool bu wàccee day gën a jàpp. bu jaaxaanal bu jaaxaanal. bu wàccee day gën a jàpp. loolu jaaxaanal bu nga jaaxaanaloo. bu jaaxaanal këppoo bi. waaw bu jaaxaanal. ñu fay ko ñu fay ko. jaaxaanal bu jaaxaanal. bi dafa am suuf. bëgg a def ay jàmbaar Thank you.

te nag ngeen ko noonu waa doomu aadama bi di ko tey ak ndox waaye ñu ngi yokku daanaka mën nañu wax ne ndox boo xam ne waroon na mën a xëy oto bi dëgg dëggantaan soxal ngeen ne bañ ngeen ko waaye ci askan bi ñoom ñëpp ñu takkoo taxaw ngeen mën a euh, euh, jàmmaarloo ak xabaar ba mën a xëy oto bi kàddu yi nag la ci ki nga xam ne mooy mënuñ ko nekkal bi nga xam ne moom moo doon tuddee oto bi ba euh, tàkk tàkk bi tàkk bi ba kàddu yi la koy rotal léegi man maa dem c'est que mécanicien bi da ko fi indi. léegi ñu war a am lu ñu suude ci suuf. léegi affaire bi jege quoi ma ne ko lii il faut ñu jaaxaanal oto bi. léegi bi ñu jaaxaanalee oto bi. ndeke moom bi muy jaaxaanalee oto bi dafa tëj bunt yi. léegi bi ma tàmbalee suude rek laa ko ne ubbil bunt yi pour ñuy xoolaale oto bi yow waaw. ne ko ubbil bunt yi pour ñuy xoolaale biir oto bi ndax bu jàppee rek kenn du ko fay. yaa ngi dégg da koo tëjoon waaw léegi bi oto bi jàppee mu amul fenn fu mu jaar. xam nga léegi bi ko bi bi mu jàppee amul fu mu jaar. léegi nag oto bi daal di jàpp. waaw oto bi daal di jàpp léegi nag ñu fay fay mënuñu koo fay. c'est impossible. est que woo ngeen sapeur yi. waaw woo nañ mi ngi noonu. waaw nan ko 18 sapeur nag dafa naqaree jot. waaw noonu la mbir mi demee daal oto bi kon mu ngi doon daw. waaw oto mi ngi doon daw waaw. waaw waaw waaw la demee. waaw noonu la demee waaw. man Ousseynou laa ginnaaw bi ngeen dégloo ki nga xam ne mooy moniteur bi nga xam ne moo doon moo doon tiré oto bi ba oto bi man la bon man dama dañ maa woo dama ko defoon fii mu maas daal di tàkk. <laughs> ñu woo ma ne ma tàkk na. mais bi ma gis mbooloo bi affaire bi am sax damaa toog ba mujj maa ñëw damaa toog rek. loo ci doon defarlu. benn affaire bu ci nekkoon la ah waaw mécanicien moo xam li ci moo xam li ci nekkoon dafa maa woo ne ma am lu ma ne ko léegi kon yëpp ko ci tëli bi mu daa koy defar léegi nag bi mu koy bëgg ci tëli bi nii kii defaroon na ko dafa defar moo nekk kii moom lan lay liggéey kii tëli la tëli la la mais li nekk nii moom moo ko defaroon xam naa daal di yàqu ci dina xaar mu yóbbu ko mais de façon man xaw ci benn responsabilité parce que man xaw ci lan la ci def mhm. mhm. mu doon daal bu ñu laa rek moom mécanicien bu ñu waat encore ne ma a ah, mu ne ma ne ko ah, moom mu ba mu tàkk ah ma koy jàngatee xam ne yàlla moo ko dogal ma mhm. sant amuñ amul benn problème loolu sax waaw sant yàlla jërëjëf waaw léegi xaar ñëw wanaat ma fii lii tam lii lii nii mun ma gis nga lii dafa teteeku léegi après ma ne ko léegi kon ginnaaw lii dafa teteeku léegi kon da ngay jaaxaanal oto bi bu ko defee bu ñu oto bi bu ñu tegee cric fii cric ko danay fermé léegi bi ñu ko cricee na na ban tàmbalee suude fii léegi bi ma tàmbalee rek laa ko ne ubbil bunt yi booy bi xool oto bi ndax li ci biir bu jàppee rek kenn ko fay waaw léegi ubbiwu ko waaw léegi bi mu jàppee nag mënoo xam fenn mënoo am fenn foko fay. mënoo am fenn foko fay. léegi man maa dem c'est que mécanicien bi da ko indi léegi ñu war a am lu ñu ci suuf léegi affaire bi jege quoi ma ne ko lii il faut ñu jaaxaanal oto bi léegi bi ñu jaaxaanalee oto bi ndeke moom bi muy jaaxaanalee oto bi dafa tëj bunt yi léegi bi ma tàmbalee suude rek laa ko ne ubbil bunt pour ñuy xoolaale oto bi yow waaw ne ko ubbil bunt yi pour ñuy xoolaale biir oto bi ndax bu jàppee rek kenn du ko fay daa nga dégg da koo tëjoon waaw léegi bi oto bi jàppee mu amul fenn fu mu jaar xam nga léegi bi mu ko bi bi mu jàppee amul fenn fu mu jaar léegi nag oh bi daal di jàpp waaw oto bi daal di jàpp léegi ñu fay fay mënuñu koo fay c'est impossible est-ce que woo ngeen sapeur yi waaw woo nañ sapeur mi ngi noonu waaw nan ko 18 sapeur nag dafa naqaree jot waaw noonu la mbir mi demee daal oto bi kon mu ngi doon daw waaw ah, oto mi ngi doon daw waaw waaw waaw waaw hmm. noonu la demee waaw noonu la demee waaw tur bi man Ousseynou laa Ousseynou waaw merci ginnaaw bi ngeen dégloo ki nga xam ne mooy menuisier bi nga xam ne moo doon euh, moo doon euh, soudé oto bi ba oto bi doxe ci pàkk euh, ki ngeen di dégg nag mooy ki nga xam ne moom moom oto bi andi woon fa ngir ñu defaral ko oto bi yii kàddu la ci yi